ci fanu waxtaan ci lu toll ci fukk ñaari session de formation juróom-ñaari fukk panéliste war ko amal ci secteur bi ñuy duppee industrie culturelle créative ñii di waa Afrique nag li ñu bëgg rek mooy yokk créativité bi ca ndaw ñi. premier jour bi comme nu mu ko waxee dañuy ubbi li nga xamante ni moom mooy village des arts et de l'économie créative village boobu bu ñu ko defee c'est pour permettre jeunes sénégalais yi nga xamante ni dañu nekk dans le secteur des ICC ñu mun présenter li ñuy liggéey. bokk na ci programme bi itam ay ndaw yu postuler ay projets yi nga xam ne dañ leen war a primer. ren dañu focusoon si li nga xamante ni moom mooy théâtre gastronomie ak animation animation mooy lépp lu jëm si digital donc bi ñu ko defee am nañ vingt cinq projet yoo xamante ni euh, c'est abouti tànn nañ ci neuf yoo xamante ni ñoom ñëpp dañuy ñëw ñooñu la ñu war a accompagner Pépite Académie boobu résultat yi vendredi nit ñi dinañ xam ñan ñoo si bénéficier partenaires yi prononcé wu si accompagnement bi nga xamante ni moom lañ leen di defaral. lu toll ci ci participant nag bindu nañ ci plateforme digitale bi nga xam ne organisateurs yi ñoo ko sampoon loole nag di wane ne seen temu ren bi amal na leen njëriñ bu baax. Et parmi ñu bari ci participant yi doon nañ ay acteurs ci secteur bi ñu tuppee ICC loolu day wane solo waxtaan yi nga xam ne moom lañ doon amal. forum bi le nag nar a am ci 72 heures yi nga xam ne ay boromi xam-xam dinañ ci wéccoo ay xalaat ñi di organisateurs yi nag di xaar ay résultat yi nga xam ne day tax njiit yi jël ay ndogal ngir gën a dooleel secteur bi le nga xam ne bëri na potentiel waaye ba léegi développement bi dafa des lool.